sant yàlla rek sant yàlla nanu sant yàlla rek sant nanu sant yàlla rek ko sante moom rek kon mu dolli ko sante moom rek kon mu dolli ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi diwaan yëpp di ziyaaraat ñëpp dina asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu amaan mbégte loolu toogaat fii jàkkaarloo waat ak yëpp comme niñ koy defee saa su nekk fii lay xewee ci biir Xumb te Dagal ku ñu bëgg a topp rek dangay abonné ci page YouTube bi xumbita dagan incha allah bu ko defee nga mën a topp suñuy waxtaan ñu ngi leen di béggee lu baree baree bari bari macha allah tey nag fi ñu ñëw suñuy fàttalante mooy fi ñu ci tolloon rek ci àqu sëy yi àq bi nga xam ne nii soxna si moo ko ameel borom këram te muy lu am solo lool ku ci nekk ci ñoom war koo mën a xam bu ko defee nga mën a eh, dund ak sa borom kër sans pour autant nga koy nga koy offensé wala nga koy sonal kon mi ngi noonu tey nag dañuy ñëw ci àq bi nga xam ne nii mooy ñetteel bi ndax fi ñu njëkkoon a gis mooy topp sa borom kër mooy topp ko ci li nga xam ne nii moom la yàlla digle waaye nga bàyyi tereem ci li yàlla tere biñ ci tegaatoon mooy nga sàmmal ko alalam ñoo ko gisandoo woon waaye tey dañuy ñëw ci beneen boo xam ne nii dafa xaw a sensible mu bëri ay ruqaruqaa yëpp xam naa du yem ci tey ci waxtaan dinañ indiwaat ñeneen ñoo xam ne nii ñooñu ci sut xam-xam ndax loolu dafa laaj gëstu bu baax a baax ndax liñ ciy wax moo moo bari werante yi bari ci lu nekk bari ci mi ngi noonu muy lan mooy jural ko doom kon dafa war ci jigéen àq bi mu amee borom këram mooy mu jural ko doom su dee mën na ko wér na dara dalu ko na jur ay doom moo gën mu naan damay espacé naissance damay planique damay noppalu nekk ma fi di mbacc mbaccal kenn góor ñi jaruñoo jural doom nangam sàngam yooyu yëpp dañ koy dégg waaye ki nga xam ne nii dafa nekk ak borom këram sa borom kër bëgg doom mu ne nga ne dee yow du fi amee ndax amoo jotu nekk fi yaa ngi jur doom wala doom jur doom yi dalay day yàq sa sa forme wala nangam wala sangam dañ ko fiy dégg yu baree bare alors que ni da ngeen di réeree mbir ni yow àq bi nga amee sa borom kër jur doom na cee bokk kon ku ko mën rek na ko def daw ja ba ngay ami tànk ci ngóora la bokk am na ñoo xam ne tey ji ñu ngi ne siiw taxaw bëgg am doom waaye mu tëleen ndax la yàlla da leen a nattoo ñàkk bañ a am doom yow mi nga xam ne yàlla da la koo wërsëgale nga wér dara dallu nga war koo mën a mën war a mën a jur doom jural doom rek doom moom ki nga xam ne bu amee doom rek bakkanam xañ na ci kooku la ñuy teree am doom kooku mën nañ koo may mu dem defi planique loolu nag si si day fekk euh, docteur yi ñoo ko xool docteur yi maandu ñu ragal yàlla xool ko ne ko kii mënatul am doom bu ko defee ñu bañ bu jaree ñu dëpp butitu jurukaay bi sax waaw waaye nag ki nga xam ne nii yow dara dal la des fois sax da ngay gis koo xam ne benn doom lay am rek mu def defi planique bu ko defee fa lay jaaree amee ay complication yu dul jeex. ami ay complication yu dul jeex fu nekk nga dugg faju nangam sàngam fi ne ni li jara faj mooy ñi amuta ñu mu ñi tëw am doom nga xam ne fu ne la ñuy dugg dëkk ak dëkk sëriñoo sëriñ ñu dem fa pour ñaanlu rek pour am doom ñooñu ñoo la ñu war a jël faj leen mais ñi nga xam ne dañuy am doom nañ leen bàyyi ñu am doom pourquoi ñu leen di encouragé ñuy def ay planning fii par ci par là ñu leen bàyyi bu dee wér nañ dara dalu leen nañ leen bàyyi ñuy am doom amul benn problème mais nekk fi naan du ma fi jural kenn dama sàngam damay liggéey damay sàngam damay nang di nga dem ba tollu état boo xam ne nii di nga bëgg a jur doom mu tëla ndax doom accouchement ak li mu laaj yëpp xale moo ko mën mag mënu ko da boo xam ne dafa nef rek wala mu am ñaari doom wala ñetti doom ci biir sëyam rek ñu yaa ngi mbacc mbacc looy daw bay daan nangam sangam góor ñi jaruñoo jural nangam sangam ah lu lu ko fi jar te pourtant moom loolu la opté jural jëkkëram ay doom nit ñi ne dee du ko fi defee wala ñu naan ko chaque at mu jur kii de xam naa am na yàlla may na ko nàngam sàngam ndax moom dafa accepter li ko yàlla may accepter li nga xam ne nii moom la yàlla dogal ci moom kon da koy def kon ku mën a jur doom rek buñ fi nekk di ko nangam sàngam ko mën na ko def ku ko mënul toogal am problème ku nekk nag ak sa choix ku nekk da ngay gis koo xam ne nii dafay def choix mu ne man si biir sëy bi ñaari doom laa am bu dee yàlla dana la man ñeenti doom laa bëgg nga am wala mu ne la ah cinq doom ngay am nga dem yemale fi sa njur nga am benn doom def planning kon léegi yaa ngi planifier sa bopp soo ko defee su ko defee yàlla dalay bàyyi ak bopp dalay bàyyi ak sa bopp dalay bàyyi ak sa bopp soo demee nag ba am envie bëgg a am doom moom it mu téye ay doomam ne la doo ko fi amee fu ne nga dugg fa di sonn alors que ni yaa ko yóbbee sa bopp kon àq bi nga xam ne soxna si da koo ameel borom këram mooy mu jural ko ay doom kon ñi ko mën nañu jur te bàyyi planning bi amul njariñ day indi ay inconvénients ci santé indi leen ay complications te jaru ko kon mi ngi noonu ñu yemadi fii incha allahu ba beneen ñooñu ngeen dégg ci suuf nag ñooy waa Salsabil waa Salsabil ñoo nekk noonu macha allahu ñi def concert bu rëy rëy fi nga xam ne nii mooy Pikine euh, en face saf baar bi incha allah fa lañ koy def samedi le 20 avril incha allah à de 16h ngi ñëpp nuyu fii rek ba beneen incha allah wa axiru daawaanaa ni alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi